acte bi ñu def ni tey mooy signature de protocole moom mooy wane ni véritablement 200 parcelles yi nga xamante ne ña nga ca teewoo léegi ñun acteur de médias ñun ñoo ko moom. ci 200 yooyu ma ci woo woo président de la république son excellence monsieur Macky Sall nu mu jàppee ci 100000 logements yi ak lancement bu mu def ci 100000 logements projet boobu presse bi dafa di jouer un rôle important ci Sénégal. mu boolee ci 100000 yooyu mu boolee ci li nga xamante ne moom mooy presse bi mu jàppale li nga xamante ne moom mooy 200 200 logements yi nga xamante ne am am nañ ko moo tax ma koy laaj balaa muy dem man loolu laa ko souhaité te loolu laa souhaité loolu la ñu souhaité ñun ñëpp mooy que balaa muy dem très rapidement mu poser la première pierre xeer bu njëkk bu maison de la de bu cité de la presse te loolu histoire da koy retenir loolu du fay ci parce que danañ ne moom bi mu fi nekkee. la ñu teg li nga xamante ne moom mooy première pierre cité de la presse